waaw damay wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun euh, maa ngi jaale fami làmb yëpp di wan ne rafet rafetaat na gën na rafet ni lii mooy wan ni mbër yi ñoo bokk ndey bokk bàyyi lii wane na ni rek ñun ñoo bokk ndey bokk bàyyi lii rafet na lool tey ku fi ñëw fii ci almeer rek sa xol sedd na lu ko waral nag Modou moo ko waral ndax yaram ak tegginam ak respecté nit ak jox nit cër doo dégg nit mukk mu wax nit si lu ñaaw mosoo dégg Modou wax nit lu ñaaw man de mosuma ko dégg mosuma wax lu ñaaw tamit papaam ma yaroog moom parce que man damaa dëkkoon unité daanaka 15 ans dëkk naa ko fa. xam papaam bu baax xam ko ci yar ci teggin ci nangu liggéey am fulla yar njabootam kon boog dan koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na saraxam yàgg ci loxoom di ñaan Modou Lo mu muñ te yaan yéen bi ko suñu borom teg mu woyof si kawam lool taxaw fi baayam woon mu tellu fa ndaxte ma nga fa woon ndaxte ma nga doon jàppale famille beeg ñëpp kon boog nekk gone du tee nga doon kilifa yàlla def na ko kilifa ko yàlla jàppale. Thank you.